mais balaa yaa diggéen àdduna sax fekk na ñu mën a moom ñu waxtaan bu jubóo baax. d'accord mais président bu may ñëwaat si Wezo euh, presque Tekno 2017 ba 2023 ci lañu accédé li nga xamante moo di première division mais avant euh, yaa ngi doon dégg li nga xamante moo na maanaam les les de couloir parce que ñu wax li nga xamante ne maanaam équipe bi nga xamante moo moo wër équipe bi moo yor euh, maanaam staff bi du genre dañoo yàgg ci équipe bi di boobu ba tey. ñu ngi euh, am da ngeen sax yenn yenn maanaam yenn waxtaan yenn koñ yi yenn quartier yi gars yi seen teg seen ataay di waxtaan di waxtaan li nga xamante moo di si club bi dañuy wax ne équipe bi stade bi équipe bi yàgg nañ fi cette fois ci moo nekk bi dañuy demee li nga xamante moo di année bii nii wax dëgg yàlla bu ñu bu ñu moon bu ñu yégalul équipe bi maanaam da war nañu mën a def seen démission euh, jox ñeneen ñoo xamante ne ñu ñu mën yégal équipe bi yaa tout était guidé par la passion. Wakaam yow Wakaam nga dëkk xam nga Wakaam Wakaam dafa nekk tey supporters yi xool ñoom gagné rek la ñu xam xamuñu leneen. comme tous rek lañu ñu xam xamuñu leneen. et que gagné et que c'est une passion débordante on va dire. et que Wakaam euh, euh, dafa nekk équipe bu mag boo xamante ne dafa yàgg nekk quand même Ligue 1 lañ ko xamee Ligue 1 mooy suñu kii naturel on va dire mooy suñu place et si Ligue 1 bi def nañ fa ay jaloore. on fait partie des équipes les plus historiques euh, les plus populaires et tout donc loolu lañu xam donc loolu euh, après dina indi ay passion yoo xamante ne nit yi effectivement euh, dina am ñoo xamante ne du que d'accord ñu mais bon ils vont se dire que ils veulent mieux on les comprend ils veulent juste mieux mm-hmm. et ñun après boo nekkee dirigeant il faut accepter les critiques ça nous on savait que on était sur la bonne voie vous savez qu'on était sur la bonne voie parce que boo chaque chaque année ñuy def benn pas chaque année ñuy def benn pas y a des équipes qui ont fait ans en Ligue 2 y des équipes yoo xam mooy seen kër disons def nañ fa dix ans def nañ fa quinze ans euh, mais fii c'était encore plus dur de de de de de de pouvoir de devoir expliquer aux gens que il faut ñu toogaat fi deux ans il faut ñu toogaat fi trois ans man bi ma jëlee équipe bi. Mhm. Euh, en décembre 2021 je me suis dit l'objectif euh, au-delà de. de de de de bâtir ce programme là virage 2025 c'est de monter dans dans le mandat pour ne pas avoir cette pression là damay monter tey damay monter cette année là donc j'ai été très clair avec les avec euh, dans ce mm-hmm. sens là. Greg peut-être. coach une question boo xam ne moom euh, président dafay waxu projet mais coach en 2017 la Wakaam wàcc tey ce que les gens voient moom mooy Wakaam à Ligue 1 mais quand vous a rappelé. ban groupe nga fekk lan moo nekkoon coono wakaam ban gis-gis nga amoon ci wakaam tey ak tey yan condition nga nekkee ci wakaam ba tey ñu mën a am tey cette fierté là de revoir tey ce club dans les ligues sénégalaises le travail qui a été effectué tey quand vous lan nga fekk ci wakaam fan nga leen yóbbu bon moi question que ma retourner à mais il s'est passé des choses quand le président est venu à maintes ñu toog discuter mais voilà. chaque fois comme Moussa ñëw ñu waxtaan il me parlait du projet lan la Wakaam bëgg fan la jógee ensuite je suis un acteur du football sénégalais am na loo xam ne dama ko gisoo sama bopp bon on me dit très souvent que da nga bëgg équipe populaire yi mais non équipe aussi boo fay dem je pense que comme li ma koy faral di waxee ataay bu amul furit du du présentable donc équipe moom bu amee ginnaaw c'est déjà une très bonne chose. Mm-hmm. maintenant quand je suis venu j'ai trouvé que les dirigeants avaient avaient pris de l'avance avaient de l'avance par rapport à ce qui c'est parce que euh, le temps pressait il fallait que ñu gaaw dem préparation euh, mais pour ça aussi il fallait que ñu recruter un groupe de joueurs euh, comme je l'ai dit tout à l'heure il y avait Jo Jo Senghor qui était là-bas avant donc euh, mais bi ñu ñëwee bi ñuy commencé di jubóo l'équipe était déjà en préparation l'équipe était à Toubab Dialaw euh, ils avaient pris le soin liggéey ak un préparateur plus maintenant quelques membres du staff yu nekkoon foofu donc man bi may dem il ne restait que deux jours on a encore prolongé de deux à trois jours mais li wértéwul benn jour dama toog ak le bureau ñuy waxtaan mais après évaluation ci ci ci préparation bi dégage naa benn groupe bu wax présent ñii de c'est des valeurs sûres mais ñii on les on les regardera pour voir est-ce qu'ils vont donner satisfaction mais xam nga la vie d'une d'une équipe aussi c'est comme train buy jógee Saint-Louis di dem Dakar gare bu ne am na ñuy yéeg am na ñuy wàcc à un moment on a senti que bon euh, mu wax un jour en réunion benn wax boo xam ni bi ma ñibbee laa toog analyser waat wax bi mu di coach au même titre que ni ñu amee yaakaar ci joueurs yi noonu la ñu amee yaakaar ci yéen mais vous savez loolu aussi sas la Euh, équipe dañ koy renouveler toujours ci ci ci techniquement naka nga def coach c'est-à-dire ñëw nga fekk nga benn groupe mais xam nga ni am na ci ñoo xamante ne ay mayon faible lañ mhm. munoo continuer ak ñoom ak objectif yi ñu la jox ak clause yi nekk ci sa contrat mhm. parce que aussi il faut être réaliste am nga expérience yàgg nga ci club ji mhm. yàgg nga signer contrat donc xam nga ñoo xamante ne ñii peut-être li nga bëgg mun nañ la ko may nga delluwaat ci élite bi ou bien nga toogaat Ligue 2 mais naka nga def parce que groupe boobu il fallait que plus de presque onze personne nga génne leen fa dugal ñeneen ñëw aussi ak sa staff <coughs> liggéey la c'est un travail très très profond naka nga ko defee ci ci ci tënk on a planifié les choses parce que comme li may faral di wax rek su fekkee dafa nekk loo xam ni euh, dañuy def pilotage à vue toujours mooy avion boo jël rek def ci kérosène ba mu mën na atterrir ci océan Atlantique bi partout donc il y a un travail qui a été planifié on a discuté avec certains joueurs xamal leen bu ñu fi toogee ils auront peu de chance pour jouer alors que le club peut les prêter leen ou bien su bëggee suñu bëggee ñu libérer je pense que boo xoolee euh, ñi nga xam ne ñoo démarré euh, saison bi préparation à un moment donné il y avait une dizaine boo xam ne ils ont été libérés ils ont été prêtés ñu bëgg Euh, il fallait revenir euh, euh, renouveler yenn postes yi donc on a eu des joueurs yu am yeneen joueurs yu ñu indi je pense que tout ça c'était en synergie avec la direction du club maintenant boo gisee pourquoi on a on a on a éprouvé beaucoup de difficultés ci phase aller bi mooy que c'était c'était ce groupe là mais quand on a commencé à avoir un groupe avec des éléments yoo xam ne ils à nos aspirations je pense que boo xoolee phase retour bi on n'a pas eu de défaite. maintenant lan mooy discours bi parce que foofu la ñuy dugalee question baabu. Mhm. bi mu la naan parce que bi nga commencé défaite yi dañu commencé. di di di di di teglante. Mhm. tey clause bi mu ngi fi contrat bi mi ngi fi yow xam nga pression bi nga xamante ne moom moo nekk ci championnat. Mhm. locale bi lan moo nekk discours bi déjà. xam nga ñëw na nga ñëw ak sa staff. Mhm. donc ñooñu xam nañ la déjà xam nañ sa méthode de travail mais dafa am ñoo fa fekk il fallait que loolu yëpp may mayonnaise ba puisse prendre ba pare joueurs yi ñëw aussi ñu mun a bokk ci li nga xamante ne moom mooy groupe bi ban travail de fond nga def. bon d'abord en préparation nous avons eu à projeter le code de conduite pour dire que voilà comment nous allons collaborer c'est-à-dire que que ku ci nekk xam ni yoon bi fii la ku ko teggee aussi da nga ko teggi mais li war a dal sa kaw la ça a été euh, la première des choses et je pense que jour yëpp adhéré nañ ci code de conduite bi bon quand nous avons rédigé le code de conduite jox ko la direction du club ñu def ci ay amendements on a discuté avec les joueurs unanimement ils étaient d'accord je pense que euh, groupe moom su fekkee dañoo bàyyi rek mu nekk anarchie je pense que ku ci nekk dangay def lu neex wax lu neex bu boobaa bu fekkee dañuy ut benn affaire duñ ko teel a donc le discours dans un premier a de respecter quand même li nga xam ne mooy principe évolution groupe ak mhm. équipe leneen li mooy quand nous avons eu à connaître des difficultés le discours a été très clair tant qu'il y aura pas deux clubs yoo xam ne mathématiquement am nañu un certain nombre de points yoo xam ne mënatuñ leen dab croyons en en nous croyons à notre force croyons à nos nos parce que confiance bii ñu ñu jox ba léegi war mën a nekk une source de motivation et je pense que c'est pas entrer dans l'oreille d'un sourd d'autant chaque jour à l'entraînement on un groupe boo xam ni euh, qui avait envie un groupe qui était engagé un groupe qui était déterminé ici ajoute à cela aussi euh, les les les les les les supporters parfois ñu ñëw waxtaan ak joueurs yi léegi léegi les sages du village ñu waxtaan ak joueurs yi. mais pare bëri wu ñu woon au début waaw mais mais ñu ñu Senghor sax daan na ko wax le président Senghor mu ni ñun dabe lañ xam dabe lañ xam mais euh, mosu ñu fay jóge xam nga supporter buy ñëw tout le temps ak supporter bu toog këram aussi. peut-être la différence mooy déplacement bi mais <laughs> am na ñoo xam ni dañuy bañ gàcce am na ñoo xam ni peut-être ñoom muy taw muy naaj équipe bi fu mu y a un supporter aujourd'hui boo xam ne moo ñuy juutu entennement moo ñuy mujj entennement un jour j'ai demandé aux joueurs faites une allez-y saluer celui-là parce que kii lii muy def nii dafa wane dafa bëgg équipe bi donc lu discours a été dañ ñoo sas y a un objectif ku tee très ku ku bëgg ànd ak ñun ci loolu da ngay respecter les principe respecter le règlement qui a été mis en place. alors Babou may ma rek ma dugal foofu capitaine parce que pourquoi le choix bi nga porté ci capitaine parce que moom mooy nekk sa relais par rapport ak groupe bi au au au début. Kapi ma bàyyi la aussi. il euh, mu nga nga nuyu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateurs yi aussi nga revenir un peu ci choix bi port brassard bi. ak naka nga def aussi pour nekk sa relais là ba nga xamante ne cassure du am diggante yow coach ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy joueurs yi mais ñu bàyyi la d'abord nga nuy ak téléspectateurs yi. gën a jege sa micro bu baax kat Euh, dina ko dina ko gérer léegi ñu ñëw un ci mobilisation bi ce sont les aléas du direct euh, le technicien mi ngi ñëw léegi gérer ko euh, comme ça ñi ngi dellu waat léegi ci ci yow mais palaay loolu Babou ñu ñëw un dem nga gis ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les supporters le village ñoom aussi naka la ñu accueillir li nga xamante ne cette fois moom mooy retouru US Ouakam ci li nga xamante ne moom mooy élite bi waaw waaw dem nañu doxantu ci nga xamante moo di si biir village yi waxtaan nañu ak quelques supporters ñoom daal li ñu wax benn la refrain bi benn la wakaam bu wakaam bu ñu booloo manko dañu am li nga xamante moo di ndam ñu xool reportage bi ak ñëwaat si ngi biir wakaam fas waxtaan ñi nga xamante ne ñoo di supporters union sportive bu wakaam ndaxte gannaaw juróom benn at wakaam doon joué li nga xamante ne moo nekk ci deuxième division bi cette fois ci nag 2023 wakaam accédé li nga xamante ne moo di Ligue 1 bi mu nekk lu neex si waa wakaam ndaxte li nga xamante ne moo dimanche passé Wakam dañoon football ak seen li nga xamante ne moo di première division door équipe bi di wàlli juróom benn bal ci benn mu nekk loo xamante ne lu neex waa Wakaam gannaaw juróom benni at war waral bés boobu noonu waa Wakaam wër nañu village bi ñi nga xamante ñoo di joueurs yi ñoo di supporters yi maanaam tal ay pétard guddi gi yëpp dañ ko feete ndax li nga xamante ne moo di première division parce que ñu bari ñoo xamante ne waxtaan ak ñoom li ñu wax moo ne ne dafa a dafa war a des ginnaaw la moo tax Wakaam moo tax li nga xamante moo di yi staff bi supporter xam loolu moo tax gars yi cette fois ci def seen kéemtalaay kattan pour maanaam accéder li nga xamante ne moo di si première division bi. léegi nag xam nañu def dañuy dem waxtaan ak ñi di yi ñi nga xamante ne ñooy magu wakaam yi ñu wax ne seen sentiment gannaaw bi seen équipe yéegi ci première division bi léegi su la xam la ñuy def dañu dem laaj ñi nga xamante ne ñoo di supporters yi. avant tout ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaw Ndoye Malick euh, ancien joueur daanaka pratiqué quoi en fait mais on fait euh, ñun parce que instant bi nii bu mu jotee nii instant bi ñu toll nii nii nii nii euh, nekk na lu ñu neex quoi en fait te temps dana ñu ngi si nekk di taw parce que ñun xamuñu xamuñu ay D2 Wakaam xamul loolu quoi Wakaam en fait Wakaam moom ci kaw rek la la xam quoi en fait te ñun dañuy dund football quoi te dëkk dëkku football la quoi ren ji la ko suñu borom tudd tudd xam euh, mu nekk lu ñu neex trop boo xoolee jour woowu noonu euh, waxaam ñëpp ñëpp ñëpp a kontaan quoi en te loolu la loolu en fait loolu lañ doon sàkku quoi en fait waaw def nañ dem nañ si jàmm football ko si jàmm def ko si fair play xam nga. def ko ci fair play ñëpp euh, kaf foo ree ñëpp nekk si jàmm loolu lañ doon ñaan suñu borom suñu borom jox nañu ko quoi. mais gis nañu Wakam bu football presque maanaam ñëpp ay gis nañ ko dimanche passé aussi après yow tamit nga amal ci ban commentaire. dimanche passé moom wax dëgg fa yàlla moom boo xoolee ñëpp mobilisé wu nañ ñëpp génn nañ parce que ñun lii mooy suñu doolee quoi en fait Wakam Wakam ñëpp bu ñu defee benn say ñëpp jàppandoo en fait. liñ bëgg nañ koy am parce que ñun noonu noonu suñ loolu mbir suñu borom la quoi loolu ñun jiitu na suñ juddu quoi. avant tout ça maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di gërëm staff bi ak coach bi waaw ah, ndax ñoom boo xoolee at yi fi jàll yëpp am na gars yoo xam ne dañ ci yàgg di sonn surtout sama benn grand bu ma dëkkal fii sëriñ ak yeneen gars yi ñoom Youssou dañ yàgg a sonn si équipe bi quoi. ndax ah, boo xoolee 2017 ba léegi ñun 2017 sax. ñu ngi woon stade si période yooyu noonu ba bii cool di am bi ñu wàccee xam nga ci diggante bi nag dangay séen yenn grand yi chaque instant ñoom ñooy dem ñun booy da ngay jéeg saa yi sax benn match ñaari match toogaat du yàgg duñ dem. ah boo xoolee tamit équipe bi sonnoon na tab bi gars yi mobilisé woo génn nag ci lañ nee waaw aca mat da ci lañ demee mooy bër ci démba ci lañ ko géré après équipe bi yéegaat ndax boo xoolee léegi da ngay nekk si réseau bi di ay gars yoo xam ne équipe bi mérité wul yéeg loolu du wax. ndax boo xoolee bi fi Covid bi di duggase année boobu noonu ñun ñoo waroon yéeg mais lan lañ wax Ligue 2 du yéeg kenn du yéeg Ligue 1 kenn du wàcc Tëngéej jël na championnat moo ñuy représenté ci Europe mais kenn du ko jox moo ñuy représenté Coupe d'Afrique bi mais kenn du ko jox. mais xam nga loolu tamit dafa jekkul woon léegi waxaam jaayante jaayante waat daaw bu ñu amee ñaari victoire avant dernière journée bi xaw ma dañuy yéeg ñu gérer affaire mu jëwul jàlla mais ren la yàlla dogal kontaan nañ daal di ko gërëm ñëpp nag di gërëm staf beex ñëpp tamit waaw. bëgg nañ kontaan nañ si président beex ñëpp ah bilaa wala taag xam nga mobilisation bi ñu def nii nañ ko continuer quoi xam bu ñu ko continuer mën naan am lu ne parce que championnat xam nga yombul quoi. yombul quoi parce que lii nii xam nga day wan ne xam nga eaux club bu parce que bu mu soxla dafa am. xam nga ñun loolu la ñaan yàlla quoi xam nga mu am xam nga mbégte. saa bu booloo rek kenn xaju si kaw kenn. surtout. mais bu xiyoo ngaayoo ni duñ am dara dara dara dara mais bu nekkee benn say nii bàkki alxuraan lu ñu yóotu da nga am soxla sax ñu dem si sëriñ Cheikh nii parce que loolu xam nga maam ñoo fi bàyyi quoi waaw Oiseau moom xam nga suñu oiseau la quoi te dañuy dem jusqu'au goût jusqu'au goût bu dem ba jeex takk ci oiseau parce que ñun oiseau nañ am waxam nañ am quoi xam nga mm, xam nga ñooñu ñaanal xam nga seen télé bi xam nga continuer si kanam quoi. bon li ñuy rafetlu la loo xam ne nekk yàggoon na trop cinq ans deuxième division dafa yàggoon si ISO quoi te ISO dafa bokk si club yi gën a mag Dakar te bu yéegee dafa dellu si place am rek bon keroog célébré nañ ko ñun ñëpp on était tellement content que ISO dellu soit euh, première division comme yeneen club dakaar yi xam nga aussi tamit club bu mel ni ISO warul toog deuxième division ba yenn at yi. championnat Sénégal quoi ISO place am mooy première division waaw loolu. une forte mobilisation supporters yi nekk si ginnaaw équipe bi. waaw bon jeunesse bi daf ko soxla woon aussi tamit quoi parce que xam nga euh, Wakaam dafa nekk dëkk lébu boo xam ne dañu bëgg a football donc euh, mobilisation warul bett kenn quoi bu fekkee ni tamit loolu joueurs yi xamoon nañ ko dès le départ bu ñuy dem ni que tey dafa war a nekk lu exceptionnel pour waa Wakaam. moo tax mobilisation bi xewoon nañ ko trop mënoon na gën a rëy noonu mais aussi mobilisation bi aussi bu mu amee aussi ndam rek moo si ñëw suñu xol seddoon na trop aussi ñi ñuy ñaax dirigeants yi aussi bon erreur yi yi tax ba ISO dem deuxième division ñu jëm ko moytu xool seen biir ni ñuy organiser wu xam nga ba yàlla defaree ren première division ñu am équipe bu mag. bon kontaan si rek ah parce que vraiment lu ñu lu ñu métti la woon rek bi ñu ñëwee deuxième division bon méttiwuñu méttiwuñu bon carrément parce que doon nañ dund football bi. mais franchement li ñu fa woon daal franchement te ak euh, jaloore bi ñu def yëpp ci première division euh, rafet na woon trop ñu amoon fa place bi wa waroon a am parce que gars yi tamit doon nañu ko bëgg a xañ mais comme yàlla dogal na tamit ñafe nañ ko si cinq ans yi ndëkk yàlla jàppale na su ñëwaat nañ dañ koy rafetlu vraiment dañ koy rafetlu parce que manoon na fi gën a gën a gën a gën a tar mais yàlla def na lépp jàmm am na si te ñëwaat nañ te bëgg nañ tamit ñëw bi ñu ñëw nag yàlla defal ñu si jàmm daal ñu mën fa toog téye fa suñu équipe te yu yu gën a rafet si téye yi yoo xam ne vraiment ñëpp dinañ si gis seen bopp. parce que mais dañu gis ne Ouezo bu mobilisé woo rek supporters yi ñëw gars man koo bokkoo rek gars yi dañu gis résultat day am. waaw loolu moom yàgg na fi parce que ñun si ñoo ko fi commencé ñun si première supporters yi nga xam ne ñoo fi indi loolu la loolu moo doon suñu affaire ñun moom bu ñu commencé bëgg dara moom bu ñëpp jógee comme ni ñu koy waxee outil rek yàlla dina si def jàmm. loolu nag la ñuy bëgg mu sax ax ndëkk boole si ndëkk sport waaw surtout loolu ndëkk parce que waaw fair play bi moom dañ ko insister daal vraiment ak xale yi ñëw ni ak génération bi parce que buñ boole woo moom lu ñu bëgg uti dinañ ko am nekk na mbégte mu rëy ci képp kuy doomu wakaam parce que wakaam dafa nekk équipe boo xam ne du équipe bu Ligue 2 waaw wax dëgg yàlla équipe la boo xam ne accident moo taxoon mu wàcc dem Ligue mais équipe la boo xam ne wax dëgg yàlla niveau bi mu am du niveau Ligue moo tax euh, doon na lu rëy euh, mobiliser nañ tout Wakaam ñëpp am benn objectif lii dafa rafet dina tax sax Wakaam bu naroon a féewaloo tey ñëpp ànd nekk benn parce que Wakaam benn la euh, kenn mënu ko xar ñaar donc doon na loo xam ne ñun ñëpp war nañ see profiter jéem a seet. nan la ñuy def pour à partir de cette situation lépp luy problème ci Wakaam rek ñu résoudre ko. Euh, ci loolu aussi tamit dañuy jox mention spéciale à monsieur Abdoul Aziz Gueye le maire de Wakaam parce que tey jii nii oiseau bu yéegee c'est grace à lui il def na effort bu ne def na lu ne wax dëgg yàlla moom ak ay collaborateurs am. ku ci mel ni le président ak ñi mu àndal ñoo ñëpp ay jàmbaar lañ ñu ngi leen di féliciter di leen remercier seen liggéey vraiment rafet na. gis ngeen li ngeen xamante ne moo di témoignage supporter wu euh, Union Sportive Ouakam li ñu wax rek li may wax si début yu sànq rek mooy Ouakam lu équipe boo xamante ne buy jouer deuxième division Ouakam équipe bu Ligue 1 la mooy cette fois ci def nañ ko. maanaam témoignage c'est unanime ñoom ñëpp li ñuy wax benn la mooy maanaam am nañu mbégte bu baax a baax retrouvé li nga xamante ne moo di réseau Ligue 1 kon moo nekk réaction waa <laughs> merci beaucoup Babou Ndour mu ñëwaat ci plateau bi mun nga lu nekk donc c'était la réaction des Ouakamois par rapport ak retour bi ci fi nga xamante ne moom mooy élite bu ko defee ñu ñëwaat ci capitaine euh, très rapidement Capi ma bàyyi la sànq dañoo amoon jafe-jafe ci wàllu son bi j'espère que cette fois-ci c'est la bonne nga nuyuwaat ak téléspectateurs yi dellu siwaat ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi nga liggéey en tant que capitaine au sein au sein du groupe ma bàyyi la nga nuyu ak téléspectateur waaw ah, salaamaaleykum moo ngi seetaan 7TV yëpp di nuyu ñu ci plateau bi yëpp tamit di remercier waa 7TV ci invitation bi ñu invité nii waaw man maay capitaine club bi sama diggante Moustapha Seck moom coach maa doon relais ci terrain bi activité à chaque fois du ma wax ah affaire bu mu ma wax pour ma jàllale ko affaire bi doonu loolu difficile parce que joueurs yi ñëpp moo joxoon cër boobu su mu ñëwee di wax tamit ñoom ñëpp dañ may déglu n'importe quelle heure bu ma coach bi joxee information ak ah, fu mu doonee dama koy jàllale après lendemain bi ñëpp dañ koy appliquer mais au début sànq yaa ngi koy wax nga ne gars yi dañoo wax ne coach dafa nekk ku compliqué ku difficile. waaw moom dafa xaw a difficile benn côté ba pare dafa sévère tamit peut moom du la may temps amul benn temps bu lay may ne entraînement moom bu doonee deux heures de temps am nga quatre heures trois heures de temps yooyu passé ak moom parce ngeen def seen deux heures defaat deux heures si biti wala une heure si biti mais difficile boo koy wax ci kàddu gi ci entrainement bi la wala ci lan la. si entraînement bi si entraînement bi dafa décider parce que mën ngeen di entraîner moom yàgg nii sax comme en tant que joueur ngeen toogoon yéen ñaari joueur doon am si benn affaire boo leen di détaillé boo la fa fekkee wala mu gis leen nii daf lay anglais ba da ngay sax du la may benn temps dara dara dara soo xam ne la la jaawale dans le détail. alors euh, day andi question ki nga xamante ne moom mooy Grégoire la vingt sixième et dernière journée dafa nekkoon bu décisive déjà on attendait la vingt cinquième journée vingt cinquième journée bi ñëw ngeen nekk juste après jamono nekk nag mano mano ak ñi nga xamante ne moom mooy waa AGEL boo moytul da ngeen di dem boo moytul du ngeen dem ngeen war a jouer ak Walidan recevoir ko Wakam village bi yëpp déjà la veille rek da ngay doon sentir ambiance bi le jour même tu sentais l'ambiance du match euh, ban ban waxtaan nga waxtaan ak d'abord ak joueurs yi avant avant coach di di ñëw wax ak yéen ci vestiaire yi. sa micro. waxtaan bi ma waxtaan ak joueurs yi mooy que ñun ñëpp dañu war a conscience ci benn affaire mooy suñu objectif moo doon monter te occasion bi ñu am avant dernière journée depuis le début moom lañ doon ñu ko woon boo xoolee sixième journée. Fass ale ñoo jël ndaare am ñoo xam ne perdoon nañ espoir mais course bi gëm gëm ñu. ci joueur yi. waaw course amoon nañu perdoon espoir non dëkk bi. non supporter am na ñoo xam ne mbaa doo leen wàcc national mais. à population Wakam bi loolu lañ leen doon wax. am na ñu ma doon dajal parfois ñu ne Kapé mbaa duñu wàcc ma ne leen dañuy yéeg te boobu ñooy dernier. da leen doon defal wala da nga ko gëmoon. non dama ko gëmoon parce que dama gis ne dirigeants yi. ay jàmbaar lañ dañ nañ benn coono bi ñun bi ñu jëlee bi ñu amee troisième défaite am ni ko coach waxee président bi daf ñu oo si digg terrain bi nañu tey laa leen gën a gëm te dañuy monter. mais nga jël ndaare. Mhm. di dem entraînement chaque jour di yeewu. Mhm. yaa ngi ànd entraîné nekk ci forme mais sur le terrain résultat yi toppul mhm. moment boobu coach lan la leen teg. coach lu métti lu métti <laughs> physique bu métti. ba pare dafa jàppoon ne ceenewu leen quoi. waaw parce que instant boobu da ngay xool ne dangay ngay la yow sa xel ñëw ne moo manqué rek da nga koy def parce que moment yooyu noonu doon na moment yoo xam ne dafa difficile benn club bu teg la nga bëgg a yéeg sa objectif nekk monté nga teg la trois défaites loolu dafa metti ku ci ñëw yéen ñu ñu nit ñu doon ay joueurs yu responsable joueurs yu mature ñu accepté loolu ku si nekk accepté ko ñun ñuy def ay réunion ku si nekk osé wax sa morom dëgg maanaam. mooy ku si nekkul parce que dinañ commencé saison am ñoo xam ne duñ si ne. Mm-hmm. nga xam ne kii am na talent te génneewu ko léegi ñun ñu oote réunion génn génn orokaam ñun jour yi kese ñu toog def ndékki ku si nekk wax sa morom dëgg bu ñu xuloo ñu xuloo bu ñuy wante bu ñuy nekk ñu nekk. après dirigeant yi oo ñu ñoom it réunion man réunion boobu je me disais sax dañuy dem pour ñu xaas ñu ñu oo dalal ñu. nañu dal leen ba pare jox ñu xaalis nañu dañuy monter ñu ne gars yi nag ñun ay góor lañ man sama diisee ko sax jour moo tax ñu yéeg parce que góor góor kese nga mën a ne doo ñëw di teg la ay défaite ñu lay fay sa salaire suñ salaire mosul tardé suñ salaire mosul tardé dañuy fay à temps ngi ñëw ñu période 31 décembre ñu oo ñu réunion ñu yaakaar ne dañ ñuy xas ñu jox ñu xaalis nañu dama leen préparer seen fête moo oote ma ne gars yi nag ñun duñu ay duñu ay xale mm-hmm. te timit ñii duñu gën a gore ñun mënuñu tegle trois défaites ñu war ñu ñëw fii ñu xas ñu xasuñu ñu jox ñu xaalis nañu doon leen préparer seen fête ak seen famille ñun ñuy ñëwaat di nalaw moo tax jour bi dernière journée bi ma ne gars yi lañ xalaat yi dépassé yëpp duñ ñëw ba fii nag ak lu mënti xew Asel bu dóoree cinq ñun dañuy dóor six parce que Wally daan géewul dara doo ñëw ba fii kii nga xam ne géewul dara di la arrêté te wax naa la ma ne leen possibilité bi bu ñu rawee boo xam ne di six ans la ñuy wax dina defaat douze ans si suuf du yéeg d'accord peut-être question mais leen euh, mooy avant dernière journée bi yëpp doon xaar li nga xamante moo di victoire ko mobilisé wu dem fi nga xamante ne boobu moo di ba ngeen joué am match foofu 1 est que foofu tamit amu leen xaw leen maanaam perte espoir nañu affaire neexul quoi mbuur waaw bi ñuy dem mbuur xam nga boobu. non Fatick Fatick avant dernière ah, mooy Mbour lañ dem effectivement Mbour c'est vrai c'est vrai. lañ dem Demba Diop. waaw ñoo Demba Diop. Mhm. boobu bi man bi ñuy dem dama xool classement bi xool ñun ñoo gën góol. te Demba waaw man bi avant ñuy dem man xool naa classement ma ne ñun benn résultat moo baaxul suñu mooy défaite quel que soit résultat bu ñu beneen bu ñu am dañuy après ñu commencé puis yenn jours yi am stressé. Demba Diop tel ñu taal septième minute je pense. léegi mm-hmm. mm-hmm. nag ñeneen commencé jaxasoo man sama genre gi sax jaxasoo naa xaw naa jaxasoo may man dama ne nañ dal. Mm-hmm. ñu dal puus puus puus bi ñu égalisé ba deuxième mi-temps gars yi am na ñoo xam ne ñoom calculé wu ñu woon ñoom jàpp nañ ne ñooy troisième. man leen eh def leen dànk ñu ñooy deuxième. même bu buñ niilee après dernière journée bi ñu gagné bu ñu gagné ñooy monté. gars yi dal après ñu gagné. alors juste après victoire bi six si buts à loolu après dinañ ci ñëw score bi ak yéen parce que y a des y a des confrères qui sont revenus nag wax nañ ne boo mooy tout trucage am na euh, gis naa sax vice-président réagir na ci mais mais loolu aussi parce que y a eu des scores fleuves ah nga xam ne kenn kenn kenn mosu ko gis mais après coup de sifflet final bi ci face à Walidane vous en tant que capitaine lan nga sentir ak lan nga wax. man li ma sentir soulagement après ma xalaat ne libéré naa peuple mooy benn village boo xam ne ñu ngi xaar benn affaire pendant six ans tey ñu ñëw yàlla jaarale ko suñ loxo ñoom ñu yeewi leen quoi comme ni ñu koy waxee ñu yeewi leen ñëpp ma am soulagement am fierté bu baax si sama bopp parce que damay wax chaque journée l'impossible n'est pas au moi parce que tolloon nañ seen moment ñu bëri dañ doon wax mënul ne duñ yéeg wala ñi naan dañuy wàcciwaat da koy dégg parfois nit envoyé la ko parfois ngay dox ñu gaaruwaale la ko mais xam ne jour boobu noonu daal moo xam ne tey jii do moo gën a fier sama bopp te xam ne lu mënul nekk amul. pare ma xam il suffit juste d'y et de se battre pour. kontaan tamit. absolument kontaan d'accord est-ce que war na la feccam yi. <laughs> après juste ci kii bi noonu. ci pelouse Ibrahima booy bi non contre biir match bi ñu dugalee deuxième bi dafa nekk ci terrain bi di fecc mais le lendemain bi ñu ñëwee entraînement je lui de montrer encore aux autres ñu doon fecce mun ma noo génn ci loolu man ko non il faut nga def ko mais après j'ai dit non tu n'as pas le droit de danser dans le terrain absolument te match bi jeexagul juste encore bi ngay wax nii mhm. euh, contre Demba Diop <laughs> moom à un Euh, woo naa ko mu ñëw j'ai appelé Pascal pour le dire eh suñu mënul dugal bu ñu encaissé waat parce que quel que soit le résultat à Fatick nous on va rester deuxième le destin sera serait toujours entre nos mains mm-hmm. pourquoi pourquoi ñuy vouloir coûte que coûte si on encaisse un deuxième bi ñu jël troisième bu boobaa dañ naan bu jamono nulé wala bu agel nulé et cetera dernier match ñun suñu match bopp la agel des jue fële jamono jeux fële ñun suñu gagné parce que on avait quoi qu'on puisse dire nous sommes pour, pour anticiper un peu sur la question que vous voulez poser nous sommes la seule équipe en Ligue 1 et en Ligue 2 bu dugal six six ci benn match six bi ci benn match ñun ñoo ko fi dugal. coach sa score bi nag teyul xel. six buts à un. waaw teyul xel. mais si xanaa six bu teyee xel six zéro teyee xel ba on a gagné le Duc par six à zéro. on a gagné Oslo et ak des buts yoo xam ni. possession 35 passes. mais mais pour coach xam nga tax gars yi di am ay jiixi jax mooy le premier but latéral bi. mooy mooy latéral euh, équipe adverse bi. ay jiixi jaaxa bu ci amee. non en fait question euh, après après nga ñëw. ok en moom. waa ji bu muy passe bal bi amul benn conviction xam ne les deux attaquants de l'US Ouakam ñu ngi ñu ngi taxaw en face bal bi bal temps bal bi tamit amul doole. Mm-hmm. ak li nga xamante mooy sixième but bi waa ji dafa passe bal bi mooy défenseur bi dafa taxaw yërnu nii rek. xool ba gars yi gars yi dem ba gars yi mat seen troisième bi bëri ñu ngi koy commenter si réseaux sociaux bi. léegi léegi du ma xaar sax ngay poser question une pression sur eux ba c'est le son camp xanaa. match boobu dañ koo jaay bon oui ma alale c'est un défenseur qui a marqué contre quand on jouait contre le Duc on a marqué des buts très clairs Walidane n'avait rien à gagner ci match bi xam nga ku bëgg ak ku bañ sa dire que tey jii man dama doon sax duma ma du wax ci ci ci ci ci question boobu. non bàyyi ma terminer bàyyi ma ah. terminer xam nga moo tax. non président après il faut mu doon. non non waxtaan waxtaan entre président. <laughs> cest dire que si c'était le le président de AJEL ou bien l'entraîneur de AJEL ou bien le dirigeant de AJEL moo wax loolu laa je pourrais je pourrais peut-être répondre à mais ku soxorul xool la trajectoire de Wakam je ne parle par de cette année année yi yëpp laa wax nga xam ni c'est une équipe boo xam ne travaille na pour revenir ci élite bi. mais président président ah. xam nga gars yi lu gars yi wax mm-hmm. parce que nañ avant match bi mooy discours bi nga tenir ne bu gars bu leen histoire ñun dañuy dem jël victoire bi ñëwaat gars yi ils ont dit que tu as vous avez décaissé décaissé beaucoup d'argent jox ko ñi nga xamante ne peut-être mooy l'équipe adverse moo tax ngeen affaire yomboon trop ci US Wakam. client ak. dégg nga ko dégg nga ko si réseaux sociaux yi dégg naa ko mais vraiment euh, quand j'entends ça ça me fait très mal parce que le coach l'a dit nous sommes la seule équipe à avoir battu ici une équipe dans un match à match à enjeu Duc 6-0 Oslo ñu yem ay ñu yem point ñu dóor ko 3-0 mais pourquoi vous ne vous posez pas la question Agel joue avec Thiès FC qui est la meilleure défense qui n'a jamais encaissé deux buts qui encaisse ce jour-là cinq buts Agel n'a jamais marqué quatre buts n'a jamais gagné même trois et subitement Agel gagne 5-1 Ousbakam gagne 6-1 pourquoi on pose la question à moi pourquoi vous ne le posez par la question non il faut qu'on se respecte vous avez vu les buts ñu ne marqué nañ trois buts euh, à 3-1 après yeneen trois buts euh, c'est c'est pas la 3000 même à 3-1 ñu ñooy qualifié même à 3-1 ñu ñooy qualifié nous sommes la meilleure attaque nous avons le meilleur buteur nous avons le deuxième meilleure défense, nous avons les meilleures statistiques. Mm-hmm. nous sommes à la sixième journée nous étions relégables on a fait une remontada vraiment sans faille et on nous dit qu'on ne mérite pas de monter moi cette question là franchement. je je je je je ne je ne veux même pas en parler. voilà maintenant je je euh, avec euh, votre permission. sur la question au capitaine il a quelque chose boo xamante ne qui a été déterminant. effectivement quand bi ñu enchaîner quatre victoires quatre défaites gars yi tiit gars yi découragé tout ça. yow lu tax découragé la. moi toujours cru cru. pas aujourd'hui être le conducteur du train et monter du découragement effectivement ils ont vu ma vidéo où je dis aux on va gagner dimanche et l'équipe va monter non seulement dem ko gëm mais baabu mënu ma nekk man di dawal train bi gars yi nekk ci ginnaaw mooy dute je donne le ton et le ton c'est le ton de la victoire damoo joxe ton bi booy booy gëm ko et puis man maay maay dawal train bi man maay gis la gare avant ñoom et la gare je l'ai vue parce que je l'ai vue comment ndaara ñu jël di yëg di yëg di yëg huit journées on était deuxième tout tout lépp lépp pare woon on a encaissé kenn mënuñu gagné après on a pris quatre défaites au début après kenn mu gagné et c'est ce que je disais kenn mënuñu woon gagné parce que on avait une famille une solidarité terrible kuy football la wax xam na ngay tiit une solidarité terrible ku taxawoon foofu noonu sa dernier match dañ lay bokk dañ lay dugal six ku fa taxaw wakaam mu na la doo six donc vraiment ce débat là c'est mais c'est le mental on avait un coach mental au bout de la quatrième journée il y avait le doute qui s'était installé. d'accord ngeen dem andi benn coach mental. on a pris un coach mental. mu ñëw mu ñëw qu'est-ce qui on a une bonne équipe on a un bon coach on a une excellente organisation. je bien les gens qui sont là man man de le dire moi président am équipe. Mhm. am naa ay vice-président am naa benn cabinet lu ma soxla ñoom ñoo koy def man week bi laay ñëw seetaan sama match. ñu ngi nii boo leen laajee ñoom ku si nekk mën naa la coach mental la au delà du coach bi nga xamante ne jël nañ ko mais ñoom ku si nekk am na ay joueurs dañuy dem di au jour yi jour yi di reer seen kër bu ñu ñëw di wax ak ñoom di dëppee les joueurs dëppee am tu di leen jëndalu di xool di dem seen kër di waxtaan ak seen ay jabar ñi seen jabar di waxtaan seen ay yaay ñi nga xamante ne amuñu jabar y a des choses yoo xamante ne mais munuma la ko wax sax am na jour yoo xamante ne on a su que y avait des ce qui faisait que. il n'était pas performant seen prestation. bien sûr Absolument. avec madame ñenn ñi c' avec euh, voilà ñenn ñi des problèmes sociaux am ñenn finalement di leen jël héberger parce qu'on savait que c' était pas ça mais donc c' est ça pour moi le mental a joué le mental a joué et l'organisation on a quand même une bonne organisation. Mm-hmm. des gens qui sont assez responsables mm-hmm. et euh, qui gèrent tout. donc ñu ñun dañu feeñ nii rek mais en réalité c'est pas nous les gens qui font le travail c'est c'est vraiment les invisibles qui sont là et c'est le moment de les remercier qui président day tax Grégoire am dugal sa question organisation boobu moom moo indi li nga xamante ne moom mooy résultat bi ndax dañoo xamante dëgg aussi sport aussi du du fen euh, mais loolu yëpp dafa am benn processus jëmm may dellu na ci Grégoire. waaw moom mooy rek Adja tey ci li nga xamante moom mooy taarix Wakaam parce que ku wax Wakaam tam wax football wax tegaam nit li nga xamante ah, moom mooy l'élite du football sénégalais Wakaam xëy na ay jaar-jaar ñoom ñoo ko tënk waaye tey ji équipe la boo xamante ni tam buñ koy wax war nañu mën a bind tey benn taarix ci moom loolu lépp jëm mbay moo ñu koy jàngatal. atum 1951 ba léegi union sportive bu Wakam jot na jànkonteel ak lu bëree bëri dund na ay waxtu yu neex comme ay waxtu yu metti lu mel ni dellu gannaaw jóge Ligue 1 tàbbi Ligue 2 ak i suspension ñu ajandika ay yoon yoon bokk na ci li ko daloon ci saison 1962 1963 club bu lébu bi mel ni ab sphinx ndax day jeng rekk waaye du daanu. ndax li jafe-jafe yi di bëri bëri terewul jël na fi coupe du Sénégal ci atum 1964 1989 ak 2006 amit titre champion ci football professionnel bi ci atum 2011 gannaaw nag tiis wi xewoon na ci coupe ligue bu édition 2016 2017 US Ouakam taxawoon fas yéene faj ay góomam ngir mën a rek dikkaat ci Ligue 1 bu football bu Sénégal lu ni mel matal na ko. gannaaw jaloor yi am solo yi nga xam ne Moustapha Seck seen coach def na ko moom moomee gannaaw ba mu yóbboowaat sa Ligue 1 équipe bu ñaari tali bu Géejawaay football club ak bu Tëngéej FC moom mi fi nekkoon sélectionneur bu équipe locale defati na am mëninam ndax juboole na requin yi ak seeni supporters ñu gineen ndam lu rëy si ñaar fukk ak juróom benneelu bëccëgu Ligue 2 nekkoon bëccëgu mujj gi weesu wakaam am ci lu tolloog juróom-ñaar fukki at ak ñaar mel na ni équipe bu judduwaat daana dem ci saison bi di ñëw war a jàmmaarloo ak fukk ñetti concurrent li ñuy yootu mooy place championne comme niñ ko amee woon si atum 2011. voilà jërëjëf jëmm mbay bu ko defee dafay tax sax ñu ñëw très rapidement parce que nous reste vingt cinq minutes ci li nga xamante ne désormais moom mooy objectif yi euh, que qu'on parle aussi d'un éventuel départ hein, de Moustapha Seck loolu yëpp dinañ si ñëw léegi ma Greg ma bàyyi la ak coach président voilà bon je vais demander président parce que euh, la montée elle est déjà acquise mais il y a un épisode boo xam ne daf leen précédé moom mooy l'épisode de 2017 am na jàngat su ngeen ci tiire benn lan mooy jàngat dëdd comment est-ce que ngeen war a tàggatee xale yi parce que aussi sànq yaa ngi maa dégg say kàddu nga ne da ngeen war def li nga xam moom mooy éducation éducation boobu noonu de base ça passe par quoi am na lu ngeen ci jëlee am na fu ngeen jëm te am na fu leen nit ñi di xaare wakaam ban xar kanam la war a mën a am ci prochaine saison bu Ligue 1 merci euh, Grégoire pas si prochaine saison bi rek mais désormais on va dire wakaam en tout une nouvelle image image bu bees image bu bees loolu moo indi euh, le programme euh, notre programme virage virage il faut nga ma toj ko tuuti rek deux minutes euh, c'est anagramme la virage de, de d'ailleurs affaire image bu lay wax nii mooy commencer par V bi ñun on doit s'appuyer sur les valeurs du club qui sont le ngor le yar et le jom pour donner la meilleure image de Wakam mooy le V ensuite il nous faut aujourd'hui nous doter des infrastructures muy la i des infrastructures vraiment mooy business model bi il faut ñu investir dans les infrastructures pour avoir des revenus pour avoir des ressources financières yoo xamante ne mooy wara a club yi mais il nous faut aussi ñu réformer suñu ay textes gis ngeen assemblée général yi nu mu mm. mel tout ça les assemblées générales foraines loolu dañu ne dootu fi am euh, la euh, voilà donc il nous faut réformer les textes du club pour en phase avec la tutelle la tutelle mooy la CAF la tutelle mooy la fédération la ligue et la FIFA seen ay textes il faut ñu jéem a nekk en adéquation muy le donc muy le R A bi il faut avoir des acteurs performants dans toutes les disciplines parce que Wakam est une équipe multidisciplinaire on a du football on, on a mmh. du basket oui. on a voilà athlétisme tennis natation ensuite il nous faut changer la gouvernance du club c'est ce que je disais tantôt boo xoolee Wakam on est très bien organisé aujourd'hui vous avez des gens qui sont des ingénieurs des professeurs d'université des banquiers de tout est là et tous ces et ces ces ces ces ces gens-là qui travaillent ñun ñooñu ñooy ñoom ñooy séddoo liggéey bi ñooy liggéey tey ku nekk président fii nii mën nga dem toog fële na la mais ñoom dinañ la defal sa liggéey muy la gouvernance ensuite le E l'éducation extrêmement important et par éducation on entend la formation c'est loolu moo tax ñu commencé tey euh, am académie dara affaire yi yëmbagul mais am nañu académie am nañu école football on former les gens. Hmm. formation bi voilà formation bi du yem kese si formation joueurs yi les supporters aussi les les les dirigeants. Euh, dama dégg nga ne da nga bëgg a am des supporters yu gën a fer play à les ah oui non pas pas yu gën a fair play les meilleurs je veux avoir meilleurs supporters. ñun am nañ base affective comme ni ko Casa amee am nañ historicité bi am nañ ko am nañ loolu yëpp mais a fi ñu jógee tey foog ñu defaraat suñu image montrer la meilleure image te yàlla mi ngi siy dimbali yàlla dimbali nañu ren dégg ngeen équipe même barki démb rek amaan na yàlla dimbali ñu bàcc bi def nañu 26 journées macha allah dem y a eu ñun dëkk foofu la ñu war a déparé aujourd'hui pour defaraat suñu. suñu équipe supporters yi wane beneen beneen xar kanam pour ñu mën a changer image Wakam. mais président Wakam am maanaam 72 euh, ans. Mhm. Wakam presque depuis depuis Demba Diop tey ba tey Wakam du ñu wax bu recevoir Amadou Bari wala njaarim bu fële lay recevoir bu euh, maanaam bu géejuwaay kañ la ñu war a mën a xaar euh, Wakam mu recevoir fi nga xamante moo di stade parce que équipe bi Ngor am na stade Yoff am na stade HLM am na stade. Patte d'Oie am na stade Wakam équipe bu mag jël championnat championnat du Sénégal boobu tey gisuñu stade Wakam. nous sommes la seule équipe de ñi nga wax fii yëpp muy commune d' arrondissement des Almadies muy euh, euh, disons toute la côte ouest la fii à Dakar bu ñu amul terrain d' entraînement terrain d' entraînement sax bu ñu waxaguñu stade. aujourd'hui pour nous entraîner pour entraîner tey on paye mille francs pour mun a entraîner tey dans un terrain. normal. moo leen dal yéen ñëpp club yi. voilà wu leen cahier de charge yi mu dellu si waat léegi ça se retourne contre vous. voilà maintenant aujourd'hui li nga wax moo tax bi nga bi Abdoul Aziz Gueye ñëwee tey yàlla def na am nañu terrain jox ñu benn terrain au niveau de du site euh, de l'aéroport derrière euh, Macky Faye un truc de deux hectares cinq. Mhm. d'accord en tout cas nous sommes en train de discuter avec maire avec le maire même si aujourd'hui bu ñu mënulee tabax stade parce que ça demande des moyens. Euh, colossaux nous allons tout faire tout vraiment pour que ñu euh, ñu ñu ñu defaat benn terrain au moins teg gazon équipe bi am fu mu entraîner nekk dans les dispositions de s'entraîner fi ñu ko buggee defaat peut-être quelques infrastructures et c'est ça euh, le i de nos infrastructures il faut qu'on ait des quand on parle d'infrastructure la première infrastructure d'une euh, d'un club de sport c'est un stade mm-hmm. c'est un terrain d'entraînement d'accord Euh, pour le moment, on utilise les terrains d'entraînement du camp, les terrains de fortune qui sont tout autour. Euh, mais euh, nous espérons, Inch'Allah, avant que euh, ce championnat de démarre, au moins, avant de démarrer, au moins, que nous l'allons gazon, euh, notre gazon synthétique, et euh, comment am fu ñu entraîner pour équipe bi. alors voilà. saison bi après da nga koy boolewale ak coach. ak kan nga koy defal parce qu'on parle d'un éventuel départ de coach Moustapha Moustapha dina ci tontu léegi mais il paraît que Jaraaf mi ngi lay mi ngi lay def les les yeux doux. mais mais président même foofu mooy tontu. <laughs> loolu mooy tontu parce que wax nañ ko. non xam nga xam nga fii dans le monde entier sala club boo gis boo mën di gis mu recruter joueur wala mu recruter entraîneur di nga gis photo bi. di nga gis di nga gis photo bi ñu def ko dans les journaux. kii bi ñu signé da nga gis foto bi mu toog ma toog. maintenant je suis vraiment désolé j'ai vu dans un journal de la place. am ko ni je suis allé jusqu'à signer et c'est un moment crucial de notre championnat ça pouvait nous déstabiliser mais le lendemain de demander à Capi et à, à l'autre Alfred qui était aussi le lendemain quand je suis venu à l'entraînement mais ni ma xoolee joueurs yi ak petit ñu ma doon xoolee c'est comme si moi dama leen trahir. ñu di booy ñu concentré suñu match bi ñëw. qui a parlé d'un éventuel départ xanaa président bi. bëggatuma saison prochaine da ngay toog Wakam wala da ngay dem. parce que ce contrat deux ans la mi ngi dépendre ci kii toog. <laughs> mais s'il veut s'il veut on continue à travailler s'il veut plus de moi. là je serai obligé de partir. des da ngay. Euh, Jaraaf personnellement approché Jaraaf. musuma toog benn dirigeant jaraaf benn dirigeant jaraaf woowu ma téléphone xanaa loolu leer na. je pense qu'on va clore clore ce, ce, cette question là ah. Moustapha Seck reste Président. à Wakam et c'est le c'est le c'est l'entraîneur de l'Union sportive de Wakam ça c'est clair vraiment y a débat là-dessus. moom ngeen di continuer aventure moom la ñuy aventure bi. d'accord léegi ah. gars yi nañ def leen tuuti ambiance ñu ñu ñu. ñu ñu ndar kepp euh, léegi très rapidement sama gars yi après ñi ngi ñëw parce que am nañu jigéen ñu fi nekk ñooy aussi il faut ñu wax <laughs> alors def leen ambiance ci ci ci loolu coach day toog <laughs> kocu ote mo kocu ote mo ilnya kotua kocu kocu ote mo parmi tu mes amis on peut pas oublier ilnya al frente. cascare, cascare, cascare, cascare, cascare, cascare, cascare la lleva, cascare la la lleva, cascare.

sa liggéey rafet na tigo tigo ye tigo asiko yaw ne yaw ne yaw ne asiko autorité cet attachement sans faille ci li nga xamante ne moom mooy le club Lébou yéen yéenay douzième requin bi euh, macha allah te ay découpler li nga xamante ne moom mooy force joueurs yi force prési force ñi nga xamante ne moom mooy staff bi donc euh, très rapidement dañuy jox rek vice moom aussi mu sànni ki quelques cadeaux désormais euh, il faut ñu gën a relever liggéey bi gën a aussi relever li nga xamante ne ambition bi muy euh, léegi ngeen saison prochaine yéen a ngi jëm. ki nga xamante ne moom mooy Ligue 1 ko defee président sa sa kàddu rek euh, quelques quelques mots ñu jox njaga jox aussi euh, jigéen ñi parce que mun mënuñu aussi bañ a jox jigéen ñi balaa ñuy balaa ñuy ndarkeep très rapidement président euh, sànni ci yenn quelques kàddu waaw salaamaaleykum Adja waaw merci beaucoup mm-hmm. maa remercier ñi fi nekk ñëpp di nuyu waa Wakaam yëpp coach ñëpp mm-hmm. président di féliciter ñëpp Euh, peut-être euh, président bi mu wax tànk ci programme projet virage. dafa am lu si am solo surtout V bi. ñu ne ñun dañu bëgg léegi Wakaam xam nga Wakaam euh, dafa am benn force bu extraordinaire mooy supporter mu ngi dem ba supporter yooyu commencé nekk suñu faiblesse. ñu toog ñu ne mais nañu waxtaan qu'est-ce qui passe quoi parce que Wakaam am na loo xamante ne tey ji bu ñu fi wax le buggi di wax Allez Casa li ñu fi def yëpp Wakaam def na ko il y a quelques années. defuñu fi dara lu Wakaam musul def mais passion daf ñoom ñun ñoom beneen qualité muy passion en même temps mu commence nekk suñu faiblesse. Mm-hmm. si nag la ñu programme vice présidence bi sa a été créé sous Abdou Aziz Gueye de dire chargé euh, de du capital humain de la mobilisation et de l'image léegi ñu commencé nag di waxtaan boo gisee nag depuis ñoom Serigne président Serigne Gueye maa koy remercier ba Ibrahima. Euh, si lañ commencé di waxtaan régulièrement ba ren boo xoolee jël nañu fi docteur Massamba Gueye mu ñëw fi ñu waxtaan sur valeur valeurs du club lan mooy ngor yar jom ñu si waxtaan di si waxtaan di si waxtaan yàlla di ñu dimbali. boo xoolee sur les cinq ans une fois ngay gis ou deux fois des actes de frustration mais nit ñi seen bopp ñooy ñëwaat na ah ñun kat. dafa am fu ñu jugee. dafa am fu ñu kii léegi boo xoolee à la limite sax on peut dire que supporters yi gën a fair play ñun la. Mhm. parce que y' a deux ans bu ñu football benn match Pikine c' était très euh, match boo xam daf ñu waroon tax ñu yéeg ñu perte ko mais boo xoolee supporters Wakaam bi ñoo organisé euh, suñu adversaires yi génnee leen tàccu leen ñu dem donc pour dire quand même li ñuy am yëpp du. li muy wax monté kenn du ko décréter. Mhm. Euh, dañ koy construire. et c'est ça dañu construire patiemment ndànk ak des frustrations de temps en temps mu metti mais in fine yàlla di ñu dimbali di ñu dimbali ba tey je pense que toll nañ foo xamante ne euh, dañu war a gis beneen wakam boo xam ne si passion bi dafa war a nekk parce que football aussi ak passion ñoo ànd mais passion boo xam ne dañ koy contrôler loolu mooy tax ñoom Ibrahima ndax ñun ñëpp yaa on a du xaar dafa bëri mm-hmm. euh, boo xoolee am na yu bëri yu xew jamono yi si mm-hmm. stade yi bon sans sans provoquer mais Adja li fi xew tey bu doon ñun tamaduñu ëpp buum quoi Euh, gis nañ fi ñi fi tas match yu bëri. dinañ dinañ fi ñëw léegi très rapide waaw léegi <laughs> mais ñun dañuy def suñu thérapie. Mm. en réalité dañuy def suñu thérapie toog ñun waxtaan suñu biir ba nga xamante ne ñu ne ñun dañu am fu ñu bëgg a dem te wakkaam bu fekkee da nga ne nga am ngor yar ak jom loolu de bu ñu ko tënkee rek ci suñuy comportement da si war a feeñ au quotidien te gis naa nit ko am ngor am yar am jom. am na yoo xam ne kenn du ko ci fekk. absolument loolu daal mooy lu ñu xeex depuis cinq ans. Euh, dañ ko continuer parce que pour man tey sax la war a gën a yokk. parce que ñi ngi demaat Ligue 1 euh, peut-être euh, ay match yu metti lay doon donc supporters dañu war a prépare préparer xam ne et ñooy force équipe bi boo gisee joueurs yi seen performance yëpp boo xoolee supporters yi la. d'accord donc il faut que ñu continuer loolu daal mooy vraiment lu ñu buggoon bëggoon wax. may may may may kii rek peut-être sur revenir toujours sur virage bi. d'accord il y a un point sur le i sur l'investissement sur les infrastructures on est en train quand même d'avoir un siège qui va bientôt venir tey aujourd'hui këru US Ouakam siège la loolu dafay baax ñu xam ko il faut nit ki foo xam ne ñu ne fii mooy këru US Ouakam tey jii foo mënti dem ay ay sa euh, ba ma j'ai la chance gis mm. euh, mais. ay club yoo xamante ne boo duggee seen siège yi mais tu te dis que ça si les entends en Afrique c'est pas un hasard. absolument am ba am ba am musée. Euh, te fii moom malheureusement. Voilà. incha allah je pense et, et que équipe bi. Euh, ñun bokk si ñu très rapidement un membre du staff euh, technique njaga suñ ko munee am mu mu wax ñu jox aussi ñu jigéen très rapidement parce qu'il nous reste cinq minutes waaw. d'accord alors euh, ñu jox moment bi très rapidement mu wax euh, bu ko defee après euh, aca ñu bàyyi la nga nuyu ak waawakaam jamono ji ñëpp a ngi lay seetaan quelque mots rek par rapport ak équipe bi en tant que moment et tout parce que dafay tax ñu dugg sax ci violence bi moment bi ñu nemmeeku ci Ligue 1 sénégalaise bi ban message nga leen di nga nga nga nga leen di lancer. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Wakaam ñi fi teew yëpp. nga a jegeel micro bi maa ngi nuyu waa ñii fi teew yëpp. Mhm. di nuyu waa 7TV du nuy sama président sonal naa ko trop yab naa ko. Mhm. man li may wax ci violence bii xew. damay ñaan suñ borom violence boobu ñun buñ si dugg. nan lañ si bañ a duggee suñ kii mooy président supporters yi saa yi ñuy dem daf ñuy ñaax te equipe bi mét tollu métti woon na métti goo xamante ne bu ñu daan dem stade. ñetti jigéen ay dem ñetti jigéen yu fidel kenn kaa ngi nuy toog kenn ki ñëwul topp nañu équipe bi fu ne man bu ma daan sol sama mayoo di génn la suñ waa koñ di xam ne Ouezo day fubal foo leen jëm da ngeen fu Ouezo day fubal tey ma ne ko dañuy fubal bu ma ñëwee buñ ñu gañee bu ñu ma laajee ku gañe duma leen uyu mais bu ma ñëwee kontaan ku gañe ma ne leen ñoo dóor parce que bi may dem dañ ma doon ñaawal mais ma sante ko yàlla am équipe boo xamante ne rek équipe bu suude boo xamante ne boo yu am jom boo yi gàcce ngalaama 2017 ba léegi maa ngi équipe bi ak ñii mais avant 2017 bi may nekk si équipe bi kii léegi laa ko doon laaj ndax juddu woon nga mën ma judduwul jamonoy ñoom giri garaat boobu kii judduwul papaam si la doon football may seetaan équipe bi mais bi ma adhéré si équipe bi dëgg dëgg dëgg 2017 la 2017 ba tey xàddiwu ma fu ñu football ma dem bu ma amulee paas sax dinaa ñaan benn dirigeant nekk que aw ma paas damay bëgg a seetaani match nga yónnee ma paas ma ànd ak ñoom di leen toggal xale yi masuñu maa wax togg gi baaxul maa kii Pam Modou mii masuñu maa wax togg gi baaxul masuñoo critiquer sama togg critiquer sama togg masuñoo wax dara si man lu ma leen toggal ñu lekk ka lu ma leen toggal ñu apprécier ka ñu nekk ay xale yaru ay xale yu baax ba tey la mujjee ñii dama leen di ñaanal rek si kaw si kanam bàyyi ñoo suñ président te kër su maa ngi lay ñaan ngir yàlla xinante bi ren géré waatal suñu équipe de première division bi ñuy yéeg parce que ginnaaw yàlla xinante bi yaa ñu yéegal metti woon na trop metti woon na trop mais yàlla ku mu àndal ku ne ànd naax yow da ngay dem xalima mënu si yow dara te ren yàlla Wezo la àndal moo ñu tax a dem egg fi ñu egg dañu yàgg yootu nag lii 2017 ba léegi ñu ngi koy yóotu yàlla mu ngi koy sooga a dogal parce que yàlla ñun ren ñun la àndal ren wakaam la àndal kenn mënu si dara lu waaye def def def def def ah lu lu ñu mënta wax tamit yàlla wakaam la àndal ren moo tax ñuy yéeg si kaw sa kanam te incha allah mm. Ligue bi ñu jëm dinañ maîtriser suñ boppa ba lépp loo xamoon ne amoon na ñagas-ñagas suñ kanam daloo ñu ñaanuñu ko yàlla mu dal ñu te lii ma gis temps yi si équipe yi nii muy am ñaanuñu yàlla mu dal ñu parce que dafa dañu ànd ak ñoo xamante ne bu ñu waxee fii la rek fii la yow bu ma rusul kii rus naa kii bu kii rusul kii rus na kii noonu la ñuy doxalee rakk a topp a mag noonu la ñuy doxalee alors pour saison prochaine da ngeen di def comme mille wala da dangeen di làbbali wala ou ngeen def maintien rek non dañuy def maintien d'accord pour 2023 2024 waaw ba ba ba miinaat Ligue 1. waaw après Ligue miin nañ ko suñ yëf la sax de. d' accord parce que Ligue 2 moo gën a métti Ligue 1 Ligue 1 suñu yëf la de. seen yëf la suñu yëf la de. d' accord maintien bi sax mën na bañ a ñàkk ah. <laughs> merci beaucoup en euh, merci. Euh, donc président supporter bi sax ba te yéen a ngi buuxante micro bi très rapidement quelque quelques secondes rek euh, président prési euh, ban message ngay day day tax sax ñu dugalaale léegi extrait bi nga xamante ne Grégoire recueillir na ko. ci violence bi moment bi surtout en Ligue en sénégalaise moment bi footballu Sénégal surtout football local bi commencé di respirer waat ñu noter cette violence là. ak sa message. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp ñu seetaan. di mhm. nuyu waa Wakaam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo seen kër pour seetaan union de Wakaam bi ñu invité. bon li ma am message bu may lancé du waa kese laa koy lancé dama koy lancé tous les supporters de tous les clubs du Sénégal. parce que tey toll nañ foo xam ni ñun supporters yi du ma joueur yii parce que football Sénégal football local bi mi ngi am niveau niveau bi mi ngi jóg. Mhm. mais tey dafa war a am accompagnement li ko accompagner mooy supporters yoo xam ne dañuy ñëw supporter sportivement tey ñun si loolu lañ nekk di liggéey. muy waawee wees waka muy yeneen club parce que am na benn collectif bu ñu créé collectif des présidents de supporters dañuy waxtaan dañuy réunir am na nañ amoon nañ ay rencontre ak ligue beeg et lépp ñi ngi dox pour fair play kese di am si stade yi boobu ba léegi ñu ngi ciy liggéey yàlla dogal na nag am na yoon yoo xam yenn yoo xam ne mu ngi am peut-être du ñàkk mais dañuy ñaan yàlla rek incha allahu rabbi yàlla doolu ñu sutura muy ñun di ñeneen ñun moom suñ côté incha allah. Mm-hmm. Euh, ñi ngi ci te dinañ ko yokk. d'accord dinañ ci gën a xaar suñ tànk tubéy parce que tey dafa am foo xam ni foofu la ñuy xaar ñu bari. ñu bëri dafa am benn bët bu ñuy xoolee. Mm-hmm. te incha allahu rabbi fi ñuy xaar du ñu fa gis. merci beaucoup bët bi ñu teg si ñun. Uh-huh. duñ gis bët boobu noonu si ñun incha allahu rabbi. d' accord yow saison prochaine maintien la wala da ngeen di defar. il faut savoir rester en Ligue 1 ba pare. d' parce que géej dañ fa quoi. d' accord ngeen ngeen ñëw jël seen marque alors day tax très rapidement Grégoire euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo doon vingt cinquième journée bu Ligue 1. très rapidement ñu ñëw tey ci li nga xamante ne moom mooy déroulement match yi en attendant le match de demain qui va opposer Guédiawaye Football Club à Jaraaf de Dakar. waaw Dia loolu nag dafa firnde rek ne jamono ji ñu toll rek le programme se poursuit bien évidemment parce que la Ligue 1 sénégalaise aussi deseoon na ay rencontre nag li ñu gis moom mooy c'est la Sonacos de Diourbel qui a pris le dessus. Mm-hmm. ci kaw ñi nga xamante rek ñoom ñooy le Casa Sport donc un score de 2 buts à aussi l'a fait face à l'AS Pikine Guédiawaye nag ak ni nga ko waxee rek ëllëg lay doon. waaye la Linguère Tamara Traoré tey jaar nañ kay nice parce que ñoom ñoo daan tey ji euh, ñii di waa SNEPS excellence bu Thiès Stade de Mbour am ndam ci kaw Teungueth FC Génération Foot tamit am moom célébré na titre am ci anam ñu mu waree avec une victoire sur le Dakar Sacré-Cœur 1 but à victoire également de Gorée ci kaw ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa Jombaar. au niveau du classement euh, Génération Foot reste toujours ligue leader Génération Foot euh, championne alors qui va accompagner CNEPS Excellence moom mooy question bi ñuy posé. bien évidemment Dia parce que bu ñu koy xayma rek jamono ji la lutte est assez âpre as diggante ñi nga xamante rek ñoom ñooy waa Linguère AS Douanes ak Pikine parce que bu ñu koy wax tamit jamono ji. jàppal rek ne c'est entre 27 28 points yi nga xamante rek ñoom ñoo dox seen diggante maanaam benn poñ cote ah, moom moo leen daal di séparé kon nag luy mel rek di firndeel ni tamit bu fekkente ni rek tey jii ci boppu classement bi yëf yi leer na tey jii ñi nga xamante rek ñoom ñoo féete ci ginnaaw ba léegi rek seen rawante dafay métti ah, lool tey jii kon yaakaar naa ne ah, suspense bi tey jii mu ngi toog rek entre la tey li nga moom mooy la onzième et la treizième place kon loole mooy li nga xamante rek moom moo féete tey ci lii di ndar képp classement bi. alors euh, coach très rapidement quelques secondes a gisee bas de classement bi métti na Linguère AS Pikine AS Douane c'est c'est c'est très serré. oui très mais tout est encore possible je pense que c'est c'est une dernière journée boo xam ni dinañ ko xeex mais man la ñaan mu yàlla dund situation yi parce que c'est des moments extrêmement difficiles. pour coach bi mais li pour tout le monde. à mm. commencer par le président jusqu'au plus petit supporter parce que. stress bi ngay àndal moment bi c'est pas facile l'équipe la plus organisée mën na ci génn mhm. mais xam nga dafa nekk aussi situation yoo xam ne parfois du du dépendre ci sa résultat kese yeneen équipe yi aussi ci seen résultat daje moo tax jongante yi boo ci xësee bu bokk mu toll ay moment yoo xam ne sa sa sa avenir mi ngi dépendre ci ñeneen ñi rek dafay compliqué d'accord mooy mooy li nga doon daw yow alors euh, Casa euh, euh, Génération Foot ñoo nar a représenter le Sénégal en Afrique alors on vous rappelle que mardi incha allah le tirage au sort ce sera 14h fële ca Égypte 11 de Dakar dinañ xam exactement phase préliminaire yi kan mooy adversaire au Génération Foot Ligue des champions africaine ak Casa fi nga xamante ne moom mooy moom mooy Coupe CAF. c'est choix bi Casa Euh, ah, si on n'avait pas choisi le le CAF on allait être fort clos parce oui. que il nous fallait quand même un club qui nous représente euh, pour la Coupe CAF le Casa Sport ave gagné la Coupe du Sénégal donc je pense que Casa Sport représente ñu moo gën ñu bañ ko am parce que il fut il a une année où on n'a pas eu de représentant et ça je pense que footballu Sénégal fu mu toll fii war nañoo mën a am ay ay représentants yu digne de leur nom au, niveau au niveau africain comme ni ñu ko defee ci ci Coupe d'Afrique yi avec toutes les catégories, bon, sauf peut-être les U23. Mhm. Je pense que l'heure aujourd'hui est de voir comment s'organiser, comment faire pour que nos clubs, nous régnions cette année au niveau africain avec les sélections, que ça puisse se faire au moins avec les, les, les, les équipes, les, équipes, les clubs, je veux dire. D'accord. Alors euh, la succession de Al Ahly euh, sera ouverte euh, jamono ji moom mooy euh, tenant du titre ci Ligue africaine des champions et puis aussi USM d'Alger ñoom Coupe CAF très rapidement Grégoire Euh, tu as la réaction de Arona Deme ak Souleymane da par rapport ak violence bi continuer di gangréner le, le football local waaw mooy déjà une image boo xamante rek jamono ji nag ça n'honore pas du tout le football sénégalais waaye ñoom tamit seen gis-gis dem na ba ci ñi nga xamante ñoom ñooy les fédéraux yi nga xam ne tey ñoom ñoo permettre ñu dem di football dans ce stade là nga xamante ne xëy na am na norme yoo xamante ni respecté wu ko tey ji ñu jàllu leen 2015 2016 yëm léegi football professionnel souvent chaque saison day am acte de violence yu garaaw te sanction du am duñu dóor kenn ndax def nga lu lu jaaduwul dañ koy bàyyi noonu di nëpp nëppal bañaw gérer situation yoo xam ne dañ ko waroon euh, régler mu gaaw euh, stade boobu di Guédiawaye c'est la deuxième ou troisième fois cette saison ay incidents yu graaw di fa am mais ba léegi gisaguñu benn sanction bu leen ci fekk donc supporter bi wala nit ki di def loo xam ne du lu yoon bu gisee ne dara du ko ci fekk bu beneen yoonee da koy defaat bu doon sanctionné nañ dès la première fois dina dina mën régler peut-être en partie problème yooyu. réewande bu mat sëkk la bu kenn faju ko kenn jéemu ko faj parce que kenn amul volonté faj ko ko ñoom la seen doom nekk viol ñoom violent du jour rek moo war a nekk professionnel administration dañoo war a nekk professionnel dañoo war a génn si gestion quotidienne du football jox orient joxe orientation ay nit yoo xam ne dañu la fay ñu exécuté bu baax ñu sanctionné leen positivement bu ñu ñoom mënuñu nekk juge et partie il ñu dindi loolu tant que ñoom ñu nekk si biir bu ñuy raayante et loolu c'est très humain bu fekkoon ku def violence bu la yóbbu la deuxième division wala ah, de Souleymane Boun ancien directeur de la haute compétition ak Arona Deme vice-président de l'ANPS journaliste sportif Grégoire dafa am question boo ci bëgg a rek wala baabu quelques secondes <laughs> Babou. voilà au fait man président laay posé benn question mais dama ñëwaat ci Ouézoula ñëwaat ah. ci Ouézoula ñëwaat waaw. au ci tënk rek. voilà au fait président euh, <laughs> dañu gisoon ne dafa nekkoon équipe dafa nekk équipe bu mag parce que Ouézo daan chaque année daan génne ay joueurs di yóbbu à l'étranger dem dem na sax ba national nationale daanoo ñàkk di si gis benn wala ñaari joueurs yu soxla ko fi nga xamante moo di Ouézo Ouakam dernier jour bi ngeen mujjee jaay moo moo nekk ki nga xamante moo di Serigne Saliou moom ngeen dañoo gis mais pourquoi pas gisatuñu Wakam signé ay partenariat te bu may maanaam joueurs yi nga xam ne ñoo fa nekk pour ñu gën a maanaam di gën a motiver wu ne jàpp nañ ñoom bu ñu bu ñu footballee partenariat ne mooy club étranger yi gars yi dañu fa am espoir a exemple ne depuis pas pour maanaam gën a dem jouer à l' étranger que mën naa jël exemple comme Fadiour Gueye il a presque 10 ans à Wakam ba baa ngi dem vraiment bëgg na tamit maanaam franchir beneen palier est-ce que tamit yaa ngi bàyyi xel loolu tamit pour ci surtout jours yi nga xam ne dañoo fi nekk. oui oui bien sûr déjà pour préciser Serigne Saliou yaay ñu ko am Serigne Saliou c'était pas une euh, une dañuy xool intérim ñu bàyyi ko mu dem euh, Cholet y a eu d'autres joueurs en Afrique ñii dem Tunisie ñii dem euh, Maroc et tout ça mais c'est vrai que on n'a pas eu de sortie Euh, de transfert sur dans, dans un club euh, européen voilà bu siiw depuis euh, depuis Mamadou Loum Ndiaye Mamadou Loum Ndiaye qui était à l'équipe nationale je pense que c'est le dernier mais pour Baye Bonia c'était avant c'était mais le li nga wax nii ñu ngi siy liggéey on est en relation avec euh, des clubs euh, allah yaakaar naa ne cette année le partenariat sera signé l'équipe n'était plus entre guillemets sexy ces dernières années. Mm. avec tout ce qui s'est passé. c'est vrai loolu loolu da taxoon na euh, que euh, quand même un partenaire difficile mais aujourd'hui les choses sont en train de s'ouvrir et très bientôt incha allah euh, l'équipe va nouer un ou des partenariats dans ce sens-là donc loolu ñu ngi ciy liggéey te yaakaar naa. partenariat gagnant gagnant la. moi je n'ai rien contre les centres de formation mais man je trouve que loolu bokk na ci li gën a affaiblir cest dire nit ñi nag ñi ngi applaudir oui le football sénégalais résultat yi am ils le doivent au centre de formation comme ay génération foot ak yooyu mais man bokk gën naa ne loolu bokk na ci li gën a affaiblir le football sénégalais euh, dégg naa la say interview nga ne da ngeen di ut un centre commercial chercher des des ressources additionnelles pour retenir vos vos fexe leen jox leen les meilleurs salaires c'est ce qui va faire développer le le, le football sénégalais c'est vrai nag euh, cas sociaux yi bëri na euh, euh, joueur bu bu sañoon da ngay dem monnayer sa talent à l'extérieur mais li dëgëral le football sénégalais c'est vrai c'est bien de signer des des partenariats avec les clubs européens mais li koy li ko war nar a dëgëral mooy chercher des ressources yoo xamante ne peut-être du ci club yooyu lay lay lay lay jógee parce que ren gis nañ benn saignée bu extraordinaire et ça va fragiliser le football sénégalais on a l'ambition imposé wu en Afrique mais avec ce qu'on a ce sera très difficile on dira pas que nag c'est impossible mais ce sera très difficile pour qu'on existe en Afrique alors Grégoire très rapidement rek ñu wax ci Lyon but ci Sokay balaa ñuy terminer. waaw jaa ñoom nag jamono yu jàppaat rek ne ñoom génnaatoon nañ moom mooy seen taxawaay waaye. ni yëf yi mujjee daanaka dafa nekk loo xamante ni rek moom mooy ab défaite waaye nag terew rek ñu lu mel dina képp tey une saison boo xamante ne seen saison assez aboutie ci li nga xam moom mooy nekk ndaw yi nga xam ne tey Mamadou Diallo dal na leen a jiite donc le Sénégal tey kii nag am tey benn defet boo xamante ne ni moom la amoon digganteem ak le pays bi nga xam moom mooy la Russie donc c'est une défaite boo xamante ne nii ça vient quelque part couronner le succès bi nga xam ne tey mën naa ne Sénégal am na ko durant tout une saison ak compétition bi nga xam ne tey jot nañu ko def donc euh, ça montre que tey euh, le beach soccer sénégalais continue de franchir un palier ginnaaw tey li nga xam moom mooy le tournoi de la francophonie. alors coach quelques secondes par rapport ak li daal euh, beach soccer bi c'est deux fet mhm. mais deux défaites yoo xamante ne qui peuvent être très bénéfiques pour pour l'équipe. moi je pense que tey jii su fekkee beach soccer bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi rayonné au niveau continental. li ñuy war a def mooy aller explorer le monde. Mm-hmm. et je pense que c'est c'est un tournoi qui va nous permettre de bien préparer la coupe du monde parce que c'était c'est c'est comment faire pour avoir une équipe compétitive des joueurs quand même du monde parce que suñu coupe du monde ba le passé defoon tey bu ñu sañee def lu ko raw. alors euh, ñu wax ci natation après présent am na lu mu ci bëgg yokk mu boolewaale ko mot la fin bi. ak euh, le président euh, Maguette euh, magget Maguette Fatim Dieye. ok jamono ji sa Adja mu ngi fële ca Japon. ndaxte mhm. foofu dafa amal li nga xamante moo di championnat championnat mondiaux yi li nga xamante ne moo jëm ci wàllum fee. ñu gën ko xamee ci natation. Mhm. sànq nag ki nga xamante ne mooy mooy maanaam nabu fee na mais mu ngi mu ngi classé huitième léegi nag bi laaj na laata muy dem kii di président bi wax na. problème yi ñu amoon euh, seen diggante ak ñi nga xamante ne waa piscine olympique wax tamit ci li nga xamante ne moo jëm championnat bi ñu xool rek def suñu calendrier depuis le mois de mars euh, mais ba léegi mënuñu ko honorer mënuñu ko tëral parce que am na ay jafe yu ndaw rek ba léegi piscine mais j'avoue que quand même am nañ ñu bari ñu ci intervenir ay autorités ba c'est en bonne voie am na rek ay détails yoo xam ni il faut que direction bi euh, dalal ci suñu xel. ñu mën a reprendre compétition yi ak entraînement yi à la piscine je pense que warul poser problème suñu rencontré le maire bind naa ko ñaar wala ñetti yoon wala sax su amul jot suñu mën a boolee cabinet bi que ñu mën am vraiment assurance que ni yu fa xewoon dootu fa xew bëgguma si ñëwaat parce que am na ay autorités yu bëri yu si yu si intervenir euh, neen doon ñu ñaan daal pour ñu bañ a delluwaat si li nga xam ni euh, xewoon na fi ñu jéem a vraiment arrondir les angles et mais faut ñu reprendre parce que daaw on n'a pas pu organiser suñu championnat yi nationaux yi ndax problème bi ren tamit ba léegi ñu ngi ci mois de juillet bi waaj a jeex waroon nañ def suñu interclub euh, nationaux régionaux et nationau ak suñu championnat pour Saint-Benjamin régionaux ak nationaux ba léegi mënuñu ko def ndax ba léegi amuñu assurance que ni suñu delluwaatee du am benn jafe-jafe parce que foog nga mën def championnat du monde yi pour espérer qualifier Jeux olympiques donc euh, si critère FINA fédération internationale foog nga def championnat du monde pour mën dem Jeux olympiques même soo deful minima mais ñu ngi ñaan ñoom ñu def minima yi parce que il se veut jege na trop minima yi ñu ngi ñaan tamit ñu baat au seen record gën a jege seen record nga xam ne suñ demee Jeux olympiques peut-être dinañu fa espérer am classement bu gën a baax. Voilà, c'était la réaction de Maguette Fatim Dieye, présidente de la Fédération sénégalaise de natation dinañu jëlaat euh, beneen numéro beneen tribune dellu si ci li nga xamante ne aussi moo am fële ca piscine olympique ndax du dëgg du yoon depuis daaw ba léegi fédération bi mi ngi wax mu ngi interpellé le maire te au Sénégal sport compétence transférée la donc on attend la réaction du maire Barthélémy Toye Dias par rapport ak ce qui se passe fële ci piscine olympique et incha allah dinañ invité waa fédération bi ñu ñëw toog fii wax li nga xamante ne moo leen metti parce que athlètes yi mënuñu performer te ñu am espace boo xamante ne d'expression loolu c'est pas possible mënul nekk président peut-être le mot de la fin ak euh, peut-être euh, en quelques secondes rek euh, kàddu gu mujj gi ak li nga si bëgg a yokk très rapidement. votre cri du cœur sur les jours qui partent des, des, salles, des centres de formation. Et après, c'est des choix économiques. C'est des choix économiques am na yoo xamante ne ils sont créés pour ça. Et aussi tey jours yi yii di football fii championnat bi seen débouché mooy dem seen débouché mooy dem après moo tax ma ne c'est un c'est des c'est business model mais en tout cas nous à Wakam notre business model. restera traditionnelle nous sommes une équipe traditionnelle qui Absolument. appartient à Wakam mm-hmm. euh, nous une base affective ça mooy suñu socle ça on va garder ça maintenant on ne peut pas être en reste par rapport au partenariat parce que il faut que nit yi nga xamante ne ñooy football Wakam di am débouché mm-hmm. non seulement au-delà du débouché voilà aussi des ressources yoo xamante ne des ressources conséquentes qui peuvent permettre à l'équipe de d'investir dans dans dans des dans des infrastructures et de rendre euh, les conditions euh, des pratiquants donc loolu la amoon lu ma si wax si côté boobu noonu maintenant le mot de la fin mooy c'est un appel je suis très euh, content d'entendre le président des supporters s'engager en disant que dinañ gis beneen type de supporters wax naa ko waxaat naa ko la concurrence c'est de faire mieux que le meilleur club de supporters de ce pays-là disons Allez Casa donc je pense que dinañ ko def te évidemment kenn dootul dégg ci Wakam ci dans la violence wala si indiscipline si tout ça donc là c'est un engagement qui est fort du ñu engagement bu ñu demee Ligue 1 ñu gis beneen xar kanam Wakam je profite aussi de l'occasion pour dire que euh, euh, dans le dans les infrastructures qu'on est en train de mettre en place très bientôt je pense dans une semaine à d'ici la fin du mois on va démarrer le siège les travaux de lancement de notre euh, un R plus donc euh, avec Euh, plusieurs euh, plusieurs plateaux euh, des salles de fitness et cetera donc nous appelons la population toute cette mobilisation qu'on a vue dernièrement les supporters les sympathisants ñi qu'on remercie au passage góor jigéen mag ndaw ñu ñëw bu ñu wootee ñu lancer suñu siège pour que équipe bi dès l'année prochaine mën na ñëw abrité wu ci siège boobu noonu donc vraiment ñu ngi remercier mënuma terminer sans remercier magu Wakaam parce que ñu ngi toog di ñaanal équipe bi jàpp nañ si góor jigéen mag ndaw supporters yi comme le disait euh, je crois ma Babou ou Grégoire a des supporters qui ne viennent pas y a des supporters qui mais ñoom ñëpp la ñuy remercier supporter bi bën a ñëw sax mm-hmm. c'est une pression c'est une bonne pression pour l'équipe donc ñëpp la ñuy remercier ci leen remercier aussi euh, Adja nga ma rek ma terminer pour lancer un appel à aux entreprises qui sont dans notre localité le football aujourd'hui foofu la ñu jëm la mairie mu ñu jàppale mais nous avons besoin quand même que les structures qui sont tout autour de nous nous accompagnent aujourd'hui il y a des structures qui sont en dehors de Wakam qui nous ont accompagnés ba ñu yegg si fii nii euh, nous vraiment nous l'espérons sur les structures yi nga xamante ne ñoo nekk si on ne demande pas par force mais aujourd'hui bu fekkee ne dañu s'ils ont besoin mm-hmm. d'un partenariat gagnant-gagnant l'équipe est là merci beaucoup merci à voilà cette TV aussi euh, aussi am équipe euh, féminine parce que léegi dafa bokk ci cahier de charge on va on va démarrer cette année l'équipe féminine d'accord de l'Union sportive de Ouakam coach kaddu objectif bi saison prochaine lan lay nekk kàddu bu mujj. non objectif bi du man maa koy fixé. <laughs> nekkee lay nekk non non c' est le président et ses collaborateurs ñooy toog fixé euh, le staff technique. mais boo sañoon saison prochaine lan ngay def. gagné championnat bi ak coupe du Sénégal ak coupe de la Ligue. <laughs> kàddu bu mujj gi. <laughs> je remercie les dirigeants qui ont eu à hmm. à porter leur confiance sur sur ma modeste personne. mais également je remercie tous mes collaborateurs qui ont été loyaux surtout avec une très bonne entente dans le travail joueurs yi ñoom gàcci ngalama laay wax mais nee naa leen euh, du du du du du question dafay yam neex non c'est-à-dire que jam-jamaat moom du nekk tànd comme ni ko olof yi waxee donc votre prestation de cette année il faut que ngeen prouver ko encore l'année prochaine pour ñu xam ni li ngeen defoon ren nekkul lu ngeen tànd je je félicite euh, je remercie encore les supporters les supporters et tous ceux qui ont de près comme de loin ont, ont, ont pour que euh, Wakam retrouve la Ligue mais sans oublier aussi ma famille ma famille mes parents euh, après la troisième défaite mon fils m'a envoyé un message à une heure tardive je dis toi va au lit il me dit non je t'accompagne gis nit dina dund ay affaire ndaw yoo xam ne parfois ça semble être anodin mais daf lay gën a motiver dans la vie Euh, di ñaanal aussi ma maman qui nous a quitté parce que à un moment donné j'étais très faible mentalement mais quand je ma doon toog di fàttalikuwaat ce qui ce qu'elle me disait surtout les les appels après chaque trente minutes après match mu di non quel soit le résultat appelle-moi et wax ma lan la donc euh, ça a été aussi une de motivation supplémentaire parce que boo nekkee ci àdduna bi nekk ak ay nit ñoo xam ni dañ la lañ la bëgg ci li ngay nekk dañ ci nekk je pense que euh, da ngay def lépp pour bañ a am gàcc mais ndam moom yàllaa ko moom et je pense que cette année ndam li yàlla dafa ànd na ko kam d'accord ban plaidoyer ngay def aussi ci techniciens yi ñu ngi dem de Youssou Dabo dem na Tanzanie euh, Demba Mbaye dem na RS Berkane ah les le sont en train de partir les les meilleurs sont en train de partir il y a des au Sénégal et je vous Ça, je le dis en connaissance de cause. J'ai eu à faire certains pays limitrophes. En termes de quantité et de qualité, technicien Sénégal, on n'a vu pas ces pays. Parce que déjà, rien que ceux qui sont titulaires de la licence A, vous me parlez de certains techniciens qui aujourd'hui n'avaient pas la possibilité de rester sur le banc durant les compétitions. Alors que Sénégal actuellement am na ay techniciens yoo xam et puis entraîneur moo moi j'étais en en il y a des entraîneurs étrangers qui sont là donc si les entraîneurs sénégalais vont à l'extérieur cela veut dire que ils sont bons. ils sont bons d'accord Greg kàddu gu mujj gi. juste dire à Dia que aussi c'est une de les tey retrouver la Ligue en sénégalaise mais aussi il faut que euh, tey ñu noppalu bu baax d'abord préparer waat xam ne am na ci lu ñu jóge am na fu ñu jëm te am na fu ñu leen di xaare donc euh, tey dire que la Ligue en sénégalaise c'est la Ligue 2 certes il y aura de matchs mais il y aura beaucoup plus d'enjeux et il y aura beaucoup plus d'attentes par rapport au comportement du club et par rapport aux résultats. donc euh, il faut pas euh, tey ñu war a mën a am tey li nga xamante moom mooy euh, de larges épaules par rapport ak tey li nga xam moom mooy set Ligue 1 là donc dañu jóge Ligue 2 il faut y aller doucement par rapport tey ak li nga xam moom mooy la ñu fay fekki parce que yaa a des yoo xam ne soo sont des clubs qui se sont installés depuis fort longtemps et xam nañ donc boo gëjee ci dara ñoo fekk ci waat dara dafa am noo war a demee. heureusement nag tey ison ont l' entraîneur ils aussi l' bi nga xam moom mooy waral tey ñoom ñu dem ci lu ni mel donc bu ko weesoo rek di leen gën a ñaax par rapport ak tout sax di nuyu aussi euh, sama benn xarit. Mm-hmm. parce que il suit avec beaucoup d' attention tey cette émission là Jacques Mbeng je pense qu'il a tey une place ci biir asiko yi nii parce que. moom aussi artiste la quoi mu ci yëngu bu baax a baax. Ah. bo borom bongo la donc tons bongo donc maay invité sama gars yi quoi ñu mën ko jël ci biir ñu intégré ko. comité de supporter Baba kaddu gu mujj gi. voilà kaddu gu mujj gi mooy di mm. di remercier président ak coach bi. di mm-hmm. remercier aussi tout Wakam parce que vraiment gars yi jàpp nañ ci. Mm-hmm. Euh, du depuis début première journée ba fin fin maanaam championnat bi ñuy yéeg li nga xamante mooy première division vraiment gars jàpp nañ ci liggéey bi. voilà tamit di jaajëfal sama benn grand sonal naa ko trop trop mu di Pape Diop. Pape Diop di ancien président ASC Léona tey émission mu laa ko may quoi tey <laughs> jogaay rendez-vous incha allah rek dimanche bi di ñëw. incha allah merci beaucoup Babou merci beaucoup Grégoire présent merci beaucoup euh, merci beaucoup coach merci beaucoup à tout le staff. technique euh, administratif les supporters kenn amul seen fay ngàcce ngaalaama merci d'avoir accepté notre invitation nous l'avons fait de tout cœur ndax ñun dañu gis ne dañu bokk ci fi nga xamante ne moom mooy wakaam ndax yéen yéenay suñu force bu ñu njëkkee gestu ci yéen la ñuy daj en tout merci encore grand merci à ki nga xamante ne moom moo réalisé émission bi muy Penda merci beaucoup à Pape Diouf Djibi mention spéciale toute la rédaction on vous donne rendez-vous dimanche prochain même heure même chaîne toujours avec le même plaisir en attendant on vous souhaite de passer une bonne fête de Tamxarit jërë ngeen wezo wey yërmande ku weesu woo ma ma wala ni ma la bëggee ku weesu woo ma ma wala ni ma la bëggee su ngeen juwee day ne ma wala ni ma la bëggee su ngeen gaañee day ne ma wala ni ma la bëggee e ko ci woo ma ma wala ni ma la bëggee ne prési wo ma ma wallahi ma la bëgg e kapi wo ma ma wallahi ma la bëgg e Alfred wo ma ma wallahi ma la bëgg Pape Diop wo ma ma wallahi ma la bëgg sama gaay aw leen ma wallahi ma la bëgg e Youssou wo ma ma wallahi ma la bëgg e Youssou wo ma ma wallahi ma la bëgg man ba mu jeex weeso yaa ñu jaral weeso way naa la am nga yërmaa Kutangaila sama siku Yohana dangado Kutangaila sama wezu Yohana dangado Tekuma Tekuma Tekuma Ana dangado Tekuma Tekuma Tekuma Ana dangado Kutangaila sama Alfred Yohana dangado Kutangaila sama Kape Yohana dangado Dohol Hepe Lala Ana soxol nefin lalla ana danga do dekuma dekuma nekuma ne linki linki taj taj taj linki linki linki yee tay ne linki linki taj parce que àdduna yàlla ko moom linki linki taj eh la fi teg linki taj moo tax pàcc bi day gën a saf. nga naan linki linki ma ne toogel ne. nga naan linki linki li taj. yoroo di ñëw di yarul. ah mun ma leen baal. nga naan linki linki li taj. ususu. sama bee. ususu.